وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانه وتعالى في كتاب مبين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم laallakum tattaquun sadaqallahu al-aziim mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu tey ci heure bi ci waxtu wi muy émission wareefu koor tey yàlla dox ñu dugg ci ñeenteelu bés bi tabaarakallaahu fegook suñu xarit suñu seex Sidina Ousmane fas yéene waxtaane tey lu jëm ci wàllu julli nga xam ni jullit bi jullee ko war ak lan la war ci biir julli bi ak yan anam la demee ci biir julli kon bu ko defé rek ñu jël kàddu gi dello ko suñu xarit suñu cheikh sidna assalamu alaykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aouzu billahi min alcheytaani rajim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan mubarakan tayyiban rabbi shrah li sadri يفقه القول أيها المشاهدون الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سن بابا كنتيكم نيولي نيو دي زيارة تي أم كونتانت ما تي جاكار لوج إميشون بي دي واري فكور دي لن بوكل ساي سنة وينك ندوكل جي dafa am fu muy commencé te mooy sa kilifa sa wayjur suñu kilifa alxuraan na ni waxtul buyut min abwaabiha muy seen sëriñ mu niiru jege yal na yàlla yàggal ko ci xilaafa gi dëgëral ko may ko wér ak gudd fan comme niñ koy faral di defee rek insha allahu taala tey ñu ñëwaan jàkkaarloo ak téléspectateurs yi fas def nasiha ak ñoom ndax ak diinu nasiixa diine layante biir la kon nag ñu bàyyi nga wax tey ban waaw fa tabaarakallahu Seydina Ousmane yal yàlla fay la boo nuyoo wayjur bi xalifa bi tabaarakallahu yow dina nuyu sa wayjur nga xam ni boroom xam-xam la ca tey ga ca dal ga ca yaru ga ca yiw ba ca waxtaan ga ca fasaxa ga ak ca balaaxa ba muy sunu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye. bu suñu mam ala ndiasse mbey mi tëdd jëmb yalla yalla yok leeram la xar wali mo la war nga def lu bax kon bu ko defee rek ñu dugg ci julli lañu waxtane julit julli tuba bi day faral di wax ni qu'on force qu'on devient forceur manam daam yo xamanteni ni mënuloo koo doon lu lu da gis nga docteur dafa bok ci métier bo xamanteni ni sa bàyyi taxna nga doon docteur teewul nga xëy suba doonu docteur dedet dang koy jangii diine bu lislaam nag da nga koy jëf mooy tax nga doon jullit moo tax jullit julli ndax yonent bi nee na li tàqale diggante jullit ak julli mooy ñàkk bañ a julli te nag dafa bari léegi ci doomu aadama yi kenn ku ci ne jullit googu nekk ci yow ba nga am gàllankoor kon bu ko def seen na Usmaan bala ñuy dugg ci waxtaan wi dañ lay jox jullita ngoog jullee ngoog yan message nga ciy joxe ci wareefu koor ak julli di ñuy jàkkaarloog ñun saa su ne di kontaan bu baax ci émission bi. jërëjëf sëriñ Babacar jigéen macha allah yow may laaj question bi sax yaa ma ko gën a xam waaye li ñuy faral di wax rek xam-xam laayante biir la. julli nag sëñ Babacar li tubaab naan la répétition est pédagogique yaakaar naa chaque jour ñu répété ko salawatul xams julli juróom. yàlla jël ko jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam riñaan loo ko fa mu ko jaarale yépp ñu jàngal ñu ko macha allahu taala yàlla joxoon ko 250 prières comme ni ko Seydil Hadj Malick innee ci xilaasu zahab. ah maanaam juróom fukki juróom fukki. waaw juróom fukki julli quoi waaw 50. wala 50 250 prières. 50. subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa. allazi barakna xawlahu. li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul alim yàlla foofu day bàq boppam di wax grandeur am xam nga yàlla sañ na def lu ko neex ci boppam parce que dafa mën boppam muy tudd boppam di tudd sellam moom mi nga xam ne fa tabaarakallaahu màgg na tabaarakallaahu mhm. muy tudd boppam naan est-ce que yàlla mi nga xam ni jële na yonent bi di ñaan loo ko ah, ci euh, minal masjidil xaram màkka ilal masjid aqda اقصى اقصى يبكو بيت المقدس لي نان لو يونت بي صلى الله عليه وسلم لي نوريه من ايات بو كو بريف بو خامني موم ريك لا اك يونت بي كين دو دوخ سي ديغنت بي جبريل مكو دون غونغي صاح امنا فو خام بام فا اغي دانيكو في في سما بلاسيام امول كين سونو لودول الا له مقام معلوم لودول امنا فو خامني فلا يم ني ناك يالا جيل كو ديريكت يوبو سي الحاج مال نانا رك كرو بكو يالا ريان لو غيس ñu ni gis na yàlla am na ñu ni gis na leer waaye liñ ci mën a dégg daal mooy keroog ba mu gisee ak yàlla yàlla won na ko fa loo xam ne yonent bi nettali na ko ak lu mu nettaliwu mhm. waaye yàlla nee na li ma gën a yéem ci sama jaam boobu mooy keroog ba mu ko indee muy visiter sama palais bi bët bi sobul nee na yër na bët bi mhm. maa zaaxal basar basaru wa maa taxal loolu jafe na parce que Babacar léegi ñu yóbbu la ci résidence boo xamul wan la ligg sa bët jaare fa dof parce que am na luxe yoo xam ne bu ñu deful tarbiya ci yow diini ya yaakaar naa pour nga beew day yomb trop parce que dinañ la woon xeetu luxe yoo xam ne da ngay waaru mm-hmm. keroog nag yàlla jox ko deux cent cinquante prières Moussa ni ko wàññi demal sa borom wàññi ko ñu koy wàññi ba mu des benn prière cinq prières mm-hmm. ndax Moussa dani ko sama xeet benn prière lañ leen jox mais dañ ko négligé. benn prière rek dafa diis wa innaha la kabira illa ala alxaashiun ah fa tabaarakallahu ñu wàññi ko ba muy juróom prière ñu ni juróom prière yor ku ko respecté am na yoolu ku julli deux cent cinquante prière wa tilka xamsu faridat yakunu laha sawaba xamsina fi ixlaasi muxtadar muy deux cent cinquante prière ñëw nekk deuxième position ci règlement intérieur yi yàlla ju tëral ginnaaw shahadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah julli ñëw julli nag mooy port bi nga xam ne mooy tijj yépp bu port bi baaxee lépp baax bu baaxul dara du baax diggante jullit ak yéefar mooy julli hmm. soo bàyyee julli jeex na man taraka salaat faqad kafara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loo mënti def te bàyyi julli saful yàlla soo bàyyee julli weddi yàlla julli nag ci tënk sëriñ Babacar mooy julli benn julli bu ko yàlla nangu rek mën naa représenter sa giiru dund mën ngaa julli ba xëy dee nag benn julli yàlla du ko nangu kon ñu xam ni julli farata la ci bépp jullit comme ni nga ni ngay wooree mu doon farata ci yow ab jullit day julli te bu mu fàtt waxtu yàlla ko jël nag jox ko yonent bi sallallahu alayhi mu indil ñu ko pour ñu respecter prière yooyu ngir bu ëllëgee fa tabaarakallaahu bu ñu xoolee suñu archive yi bu julli bi normal rek yeneen yëpp dañ koy daal di tëj kon lii mooy li nga xam ni mooy muqaddima bi ñuy def ci julli muy assalaat da ci des nag dañ lay delloo kàddu gi insha allahu taala yow nga indi sa contribution ci julli. waaw fa tabarakallahu Seydina Ousmane li nga wax rek matale na rafet na xam nga jullit daa war a julli. Hmm. ak lu mën a xew xam nga tey dama koy faral di wax ne. waxoon naa ko it parce que la répétition est un élément fondamental en matière xam nga daam lu am solo lu nekk mooy lan muy sahaba yi dañ cee wax ñu jóge ci sahaba yi jël taabia yi ñu jóge ci suba bi am mais julli dafa am solo am solo xam nga maa ngi koy faral di wax ne leen julli moom moo boole julli yépp jaamu yàlla yépp benn julli dafa boole booy julli da ngay woor booy julli da ngay natt azaka booy julli da ngay aji màkka par force boo ko deful sa julli day yàqu loolu yëpp ba shahadataan yi boo ko boole ci biir julli da nga ko ci boole moo tax julli daa foor bi ma ko waxee benn waay na ma waaw loolu nan la mën a nekkee julli nan nga mën a wooree xamoo ni ci biir charia dafa wax ni ku lekk ci biir julli te tey ko sa julli da yàqu kon feeg yaa ngi julli boo kàbbaree bu ko ngay sëlmal doo lekk doo naan mais ko yaa ngi woor kon chawu ramadan dugg ni ci bir kon lu koor di foor Juli julli ko ko de foor ndax moom bis bu ne dang koy def benen bi ci des mu ne da nga wara aji makka wa nan ngay aji makka moy lan istiqbalu qibla kep kuy jublu qibla ku jang baqara sa yaqulu sufaha di nga jang ni ya ngi deg ci bir nga xamni fi mu lay ñaari qibla ya am ya nekkon ak histoire ba ci amone tabarakallahu nga deg sidna usman bu julli bo jublu kaaba ga te boo jubloo Kaaba ga yow yaa ngi mel ni koy aji màkka kon boo nekkee ci biir julli boo tayee def ko te jubloo Kaaba gi nga tey ko dëddu Kaaba gi sa julli day yàqu. boo dëddoo Kaaba bi moo tax toujours dañ koy wax yow muy tukki boo ñëwee ci dëkk bala ngay def dara li gën mooy na laajte fan mooy. penku bi boo ko xamee nga kàbbar boo ko kàbbaree nga mën a julli ndax nit du julli fii mu ne ni boo def def la woon ba julli ba pare ñu ne la fii du kàbba du du du penku bi da ngay julliwaat te ni ngay jubloo Dakar bokk ak ni ngay jubloo cees moo tax kuy voyagé da ngay laaj beneen bi ci des it bi waa ji ne na yow ñu ne mën nga koo génne waaye bi mën na koo génne xam nga booy def asaka la daloon ci isra wal mi'raj bi day dellu siwaat da nga naan atahiyaatu lillahi azakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayul nabi waaye bo ci tegaté ban ngay wax assalamu na parce que pluriel la li li nga am ci jamm yene ko sa bop ginaaw wax nga yonenti bi ak yi da melni da nga ci ciopati ci azaka li nga yene sa bop nga yene ko sa morom ndax da nga ne assalamu alayna kon yow yalla jamm ji nek ci man ma ngi bëgg na nga tour ku ci ñun ñepp kon génne nga asaka te asaka bi gën a baax nag nit génne ko du alal de xamalal la jàmm ndax ko am jàmm am lépp gis nga ko nga joxe ko ci biir kon dafa am solo doomu aadama yi xam julli bari njariñ la ne ba da ngay dégg ndeysaan tey bu ñuy wax Sénégal dañuy wax suñu mag ñi tey boo demee ci Serigne Touba Xaadimal Mustafa lan la ñu nettali woon keroog ba mu demee ca géej ga kimtaan ba yëpp Sëriñ Tuubaa ëpp na loolu mais danoon jàngale ne bu óoru julli jotee keroog ba gaal ga jotee tubaab bi ne ko boo boo boo jullee ci sama gaal danga ma tooñ te yaa ngi noonu géej gaa ngi noonu te amul dex loolu dafa taw kon ku mel noonu bu sànnee beram ci biir géej gi sëgg siggi jéb a taq suuf day jàngale ne képp ku ma gën mën Sëriñ Tuubaa bu heure julli jotee da laa war a jaral nga julli ko kam na ma defee woon ci biir géej mm-hmm. ndonte mënuñoo def ñun ca géej ga waaye nag ñu mën a dem ca jàkka ja julli ci suuf julli suñuy kër ñun nit ku baax noonu lay def moo tax Sëriñ Tuubaa bind téere te zawatu sixaar te zawatu subaan yëpp aaxiru zamaan moo wax ci ni képp koo xamante ni gëm ngëma na nga bàyyi xel bu julli jotee nga julli kon mbokk yi nañu bàyyi xel mag ñi ku leen gëm da ngay def li ñu bëgg ku deful li ñu bëgg dañu xam ne yow da nekk ci li la neex waaye ñoom la la war bind nañu def nañu boo demee kër Seydi Hadji Malick jumaa nga fa jàkkaa nga fa xalifa bi fi ne nii jumaa jaa ngi jub rafet ñoo ngi koy pare di ko defar tey boo demee fii kër Amari Ndaat Seck boo demee Ahnulaay ndand Ahnulaay naka noonu boo demee Ceneba boo demee Maam Limaamu Laay tey jii boo demee Ñeseen fu mu mënti doon jumaa nga fa ba Tuubaa kon nak koku tabax juma bàyyi fi tabax jakka bàyyi fi mais koku kon amna na lu mu kon seen naa Ousmane dañ lay delloo kaddu gi ndax waxtu yi dab nañu ma sha allah teel a duuf ci nak bi xajul ci cin dañ danañ ci ñëwaat ndax buñu ko bàyyi gi ndax kat ñu la yéen la waré fu koor ci biir koor da nga wara wor ci biir koor da nga wuri julli da jullit lolo ko war seen naa Ousmane lan ngay tëjee ak lan moy sa mujj kaddu ah sëñ bi de limay may moy fi nga insister rek nga tuddu léegi Cheikhul Khadim. radiyallahu taala nga xam kon nag dafa mel ni wax na wax na li mu doon te wone na mu wone na li mu doon. dëgg te garantiwul kenn julli. julli kenn du ko yàlla kenn. dëgg la boo xam ni kenn ku ne yàq yenul sa mm-hmm. boo jëlee julli yan ko nit bu ëllëgee nit ko du am problème mais yaay problème. ki la woon yàlla ni la yàllaa ngi nii nga wàcc ko fa ni gisuma yàlla yow laa gis. yaa tooñ sa bopp de moom woon na la yàlla te julli dafa nekk ribaada boo xam ni doomu aadama yu bari fi mu nekk ci àdduna bi dañ ko négligé rawatina jeunesse bi yonent sa yàlla wax na ci alxuraan lu doy war mu mu ni ëllëg nit dina ñëw yaakaar nit mu weddi ko ci kanamu yàlla weddi ko ci kanamu malaaka yi weddi ko ci kanamu awliyaa yi weddi ko ci kanamu saalixiin yi ñu ko kii dafa toppoon bakkanam am na ñoo xam ne nag ñoom yàllaa leen di boole ak ñu ñu toppee woon tàbbali safara hmm. ndax lan ñu yombaloon seen diine istabara lazi nattubihu min allazi nattabahu wa raaw l azab wa taqattaat bihim asbab yàlla nee na bu ëllëgee ña nga toppoon te lañ la doon woon du yàlla du yonent relation balaay dagg complètement bu ko defee ngir rëccu loolu nag balaa mu laa dal fa tabaarakallahu ah nga respecté julli bu baax ba baax te xam ni sa bopp rek ngay liggéey fii ku fi liggéey sa bopp ngay fay yàlla tijj na compte yépp teg ku ne la nga liggéey dugal na ko sa biir compte wa an laysa lil insaan illa ma saa wa na anna sa'yahu sawfa yura yàlla nee na doomu aadama amul lu dul la mu jëf te la mu jëf lu ma ci wàññi lu toll ni pepp suuf dinaa ko ko fay ba mu ma sëkk fa man ya'mal misxaala zarratin xayra ومن يعمل مثقال ذرة شرا كن نك مجنون وما ذلك على الله بعزيز سيرن بابكر لي امون جيخنا تاك تي وقت انا سيني كارد غوم دي رك موي دنج كوي جوخ رك امام اسبارو جيغل ديكو زيار بو باخا با كون ديك نوكل تي وير كور واو تبارك الله كون بوكو دافي يالا ني يالا دافال جام ني نكو فكي رن يالا ني يالا ماي ني فكي كو دوين ginnaaw imaam As Barang nga ko jox te mu jiite imaam yi ak borom xam-xam yi yaakaar naa ni kooku mérité na ko du noonu kon ñoo ngi koy ñaanal imaam yàlla yàlla defal la jàmm defal la sutura surtout Alaaji Ahmad Boro bi ñu dàkkantele Alaaji Ahmad Boro yaag say mag ak say rakk moom daal yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sutura bi jaay Seydina Muhammad rabbana atina fi dunya hasanatan waqina adaba annaar baada is hadaytana min ladunka wa hayyi lana min amrina rashada سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين